jërëjëf TapTap Send soo téléchargé application bii di TapTap Send dinañ la may 10 euros ak code comme Lutte TV. ayca salaamaaleykum mbokk internet Lutte TV ginnaaw bi ñu leen rek di leen ziar di mbégte contentement rek di ànd ak yéen saa su nekk ci ay programme Lutte TV tey nag signature de contrat lañ ñëw combat bu war a dox si diggante pap Yékini champion bi ak Obeuly ñoom ñaar nag seen i manager nga fii teew dañuy njëkkee nag yaakaar naa yaay manager Pape Yékini Père Bourkhane Wade ñu ngi lay ziar. Euh, maa ngi lay fay Boucar parce que di ñaanal aussi Lutte TV euh, yàlla def ci promotion yéen ñëpp euh, yàlla jàppale leen mu am entente bu dox seen diggante ba lépp lu ngeen attaqué rek mu mu yomb. lu yomb mu mel ne mu mel ne tey teewaay bi tey li ko waral mooy tey danga am sa mbër sa poulain mu war a signé contrat. waaw tey moom Jimbo moom moo woo fii Jimbo xam nga c'est un jeune promoteur. boo xam ne vraiment mi ngi tëgg ay combat yu baax. mook ñoom Alain ak ñoom Pape Sarr sax euh, ñoom foog naa ne ñu ngi tëgg le le le neuf. normalement après vingt cinq juillet. le vingt cinq juillet la war a tëgg. combat boo xam ni combat yu am solo la parce que combat espoir la ñuy tëgg euh, ñu war a mu war a boole nag obali ak Pape Yekini bi nga xam ne maa ko yore. ñoom tamit ci la waaw le 25 la bëri mu nekk euh, ay xale yoo xam ne ñu ñu am yaakaar lañu parce que kenn du fàtte diggante Pape Yekini ak Reug Reug kenn du fàtte diggante Pape Yekini ak euh, Kalmu Ndour mu nekkoon ay combat yu am solo. Pape Yékini moom ñëpp xam nañu ci bari amul caaxaan. waaw boobu sax si laa ñëw Pape Yékini bi ak Reug Reug bi parce que coow li bëri woon na lool mais yow mi manager am li nga si mën a nettalu tuuti parce que sama zaan gi yëpp fekke wuñu ko. waaw Pape Yékini ak Reug Reug ca làmb ja Pape Yékini lañ jox victoire dem def recours delluwaat casser verdict waaw mais ci biir làmb ja Pape Yékini la arbitre yi jox euh, victoire. waaw yow ba nii nii yow ndam boobu noonu yow da nga koy confirmer wala tey li arbitre di wax kase verdict bi loolu nga jàpp. waa xam nga ñun même bu ñu ko jàppee tamit le maire l' arbitre et du terrain bon waaye tam dafa am commission spéciale boo xamante ni moom mooy euh, étudier recours yi suñu demee ba joxe seen décision décision bu ci boobu ci la ñuy confirmer ci lañuy ñuy wu waaye nag tey jii Pape Yékini ak ay supporters am ak yëpp ñoom dañoo jàpp ne dañoo daan te dañ leen jox dañ leen jox euh, victoire ca làmb ji waaw léegi nag euh, décision bi nga xamante ni c'est administratif euh, boobu moom dañ ci topp obligation la waaw parce que bàyyi moon yoon soo ñëwee ba léegi def naan la man Modou dama ko daan yaa ngi day wax ni moom dafa daan Papa Sow waaw kon kooku nag décision la boo xam ne nit kii moom la engagé waaw mais bu fekkee nag euh, décision administrative ah il faut ñu topp règlement ba la mu wax rek loolu la jàpp. loolu la mu wax ma ñëwaat tamit si combat Pape Yékini ak Kalama Ndour parce que Kalama Ndour ku ko xam xam ko ci keppaaru Boy Niang nga nekk manageru Boy Niang combat boobu noonu naka nga ko manager woon parce que xam naa ne euh, euh, ñàkkul loo si dégg. waaw xam nga man may manager école ba mais xam nga ñun dañu am autonomie man su may engagé beneen mbër boo xamante ne bokkul école de lutte Boy Niang mais damay défendre intérêt mbër moomu jour boobu damay encadrer sama mbër te ba pare bëgg mu daan. bëgg mu daan Kalma Ndour. ah mais bien sûr man ay intérêt euh, kii laay la laay défendre Pape Yékini mais su fekkee ni nag sama aw ma mbër buy bëreeg ñoom ah école bi lay laay parce que gis nga manager. rôle am mooy défendre les intérêts de son lutteur comme ñun dañu am autonomie ki am confiance ñëw ne la yow laa wóolu kooku il faut nga défendre ay intérêts ma Kalmu Ndour xam na fan laa toll si moom mais suy bëri ak sama mbër sama mbër laay faral. waaw mais est-ce que loolu tamit maanaam mënul andi réeroo si digganteem yéen ak mbër yi fa nekk parce que tey xëy na mu nekk Kalam Ndour wala mu nekk beneen mbër mën na am esprit de dépassement mais bu dee mbër yi a gisee foofu noonu est-ce mënul dañu war a nekk nit mbër mënul am valeur tant que dafa respecté moroomu mbëram Kalam Ndour tey su toogoon amul ku mu bëreel nan lay def kon soo demee ba am koo bëreel da nga ci war a sant yàlla tey jii man. manager laa du utiwuma gàllaaj du ma dem ci di wax lii wala laa damay dem waaw damay défendre intérêt signé contrat jotee ma dem signéel ko su ma ko waree wax ne ni nga war a tegu ci yoon ci yoon yi nga war a tegu pour réussir dama koy def waaye du man maay wuti sëriñ du man may galgal du man maay pàdd su ko mbër mi xamee noonu day simple mais su fekkee ni par exemple yow da toog di xalaat waaw père bi li tax mu def ne nangam nangam teew man joxoo ma dépense joxoo ma dërëm loolu injustice la. ñu jógee foofu noonu tamit nga nga war a mën pa sewaat Pape Yékini mu war a bëri tamit beneen champion parce que Obeuli moom ku ko xam weekend bi quatre lamb la jël. waaw loolu dëgg la mais Pape Yékini mooy mbër mi nga xam ne ku ñëpp bañ moom nangu na bëri moom te. saa yoo seetaanee kombaam def ciy def jom ak fulla ba nga xam ni même su ci jëlee euh, résultat bu négatif tamit yow doo ko jéppi moom nag amul ku munul daan nag parce que dafa mën a bëre te da ci def lu ci war. mais pourquoi le choix de Obeuly. non moom daful choix daful choix bi de. promoteur moo ñëw proposé ko mu jël amoon na ñeneen ñu ko doon proposé sax. am na ñeen ñu ko doon proposé mais euh, moom mbër la boo xam ni li tax ma gën ko naw mooy du nekk di taamu wala muy def yooyu moom daal dafa war a bëri dafay dem bëri ji dina ci def nag li mu war a def yëpp parce que xëy na peut-être tegale na ñaari kalmundur ak euh, ak euh, non non ak rëg rëg bële mu amoon ci victoire ñu ñu ñu kaase ko bii mu daanu ci waaye nag am na aussi ay victoire am na ay victoire et puis école bi mu nekk moom ñoom bébé Saloum ñoom waaw ñu école Jimbori ñoom vraiment am na fu ñu ko teg am na fu ñu ko teg parce que ku am la ci li muy def la malgré mu ngi bëre mais mu ngi jaay yàpp métier aussi di di ci liggéey saa yu gisee combat dem bëri jigu ñu ngi ñaan nag combat bi ne mu nekk combat bu muy réussir parce que dafam am place am quand nag si si si làmb ji waaw. dafa am si làmb ji ku xam Bourkhane xam ko xam ko làmb waaye kenn mënul wax Bourkhane te waxoo Boy Niang seen combat bi ñu régulariser ko barki démb jàpp ko le 8 août. waaw sant yàlla bu baax dama wax ni euh, il faut ñu sant yàlla bu baax a baax a baax sant promoteur bi sant képp koo xamante ni. taxaw nga pour réussir tout bi promoteur bi li tax ñu koy gën a sant làmb ji mënoon a dem ba peut-être décembre waaye ci expérience am ak yaatoom ak nangu ànd ak Sénégalais yi permettre na ko tey ji ñu am le 8 août ndax le 8 août beneen promoteur moo ko moomoon mais moom tamit suñ ko buñ ko wooyee ci waxtaan muy Mor Mbaye mu seede date bi léegi nag loolu day wane ni rek li président Sarr doon wax dëgg la làmb am na coow mais amul problème boo déggee coow li da nga naan diw ak diw nangam ak nangam ak nangam mais bu ñu toogee waxtaan rek déggoo te loolu moo xew si komba bi parce que yàlla dogal na mbër yi am chance dafa am ay combat man sax duma ko tuddee cumul de contrat parce que cumul de contrat amu ci kenn ku si nekk combat bi ngay bëree contrat waaw ak combat quoi bokkul ak combat bële ndax euh, doon nañ ko wax sax si Boy mais bu kii di tëgg ci saison bi kii di tëgg saison ba ca topp cumul mënu faa am waaw soo gisee tey ci MMA bi euh, Reug Reug six combats la signé di ko étaler par benn benn dërëm di ko di bëri làmb war na mën a toll foofu làmb war na faa mën a toll. mais erreur bi amoon si diggante promoteur yi bañ ki sax ñoom ñaar mujj nañu jubóo mu mel ne maanaam loolu tamit maanaam ñàkk a waxtaan la woon kon. waaw xam nga ñoom ñaar xuloo moom ñaara koy def mais ñaar ñoo xam ne tooguñu lu dul ay dégg dégg naa ak yooyu yooyu du xuloo yu yu xóot. et puis am am na ci biir wax ji malentendu mën na ko mën na nekk sax mais am na ci biir respect boo xam ne mutuel bu dox ci seen diggante soo dégloo euh, man jàpp naa ne rek euh, sénégalais yi ay nit yu conscient lañu ba suñu gisee lenn lu bëgg a yàqu dañ koy teel a defar moo indi tey jii nee naa la am na promoteur bu séddee datam am na tamit ñeneen ñoo xamante ni ay collaborateur euh, caalis lañu ci waxtaan ak xelal ko waaw ba ba tax tey jii mu mën a réussir lii mu def nii loolu daal mooy wane ni rek euh, làmb set une famille. waajtaaj bi booy ñaa combat bi passé gisoon nañ mu waajoon dem fi Japon dem fi France Tapha jar na voyage pour yow wala. ah mais Tapha Tine moo gën a jar voyage sax oui xam nga man dama àndul ak gars yi ci Tapha xamul dara wala Tapha Tine lii wala laa. Tapha Tine mënul def li mu def ci Sénégal ba pare ñuy sous-estimer ay ay kiyam mun nga lim six combats yoo xamante ni combat bu nekk ni mu daanee adversaire am bokkul kon ku munul bëre doo munoo loolu beneen bi li mu def Elton def ko euh, bombardier alors ku ñëw toog sóoraale woo ko da ngay nax sa bopp te pour nga réussir un combat il faut nga xam valeur combat bi ñun nag xam nañu valeur combat bi ñu jëm parce que am nañu affaire ak un grand champion te Bruce day wax l'art de vaincre tey jii gagné ci form yëpp l'essentiel c'est de gagner léegi nag il faut ñu préparer en conséquence pour gagner combat boobu. mais sax da a nekk couteau à parce que tamit jël ngeen avance bu Balla Gaye te moom ma nga INSEPS. la Gaye moom du ci nangoo wax actuellement nii lu dul tafaatin ku mu ci mën a laaj. ci tafaatin laa mën a wax. waaw maanaam côté voyage bi quoi comme waajtaay bi kay moo tax may wax sax. waajtaay bi xam nga lan moo tax euh, bëgguma wax ci Balla par échéance la ñun ñoo jël loo xam ni dañ ko war a travailler par échéance actuellement li xew mooy tafaatin régulariser nañu suñu combat suñu combat ak tafa euh, Balla Gaye kenn sax waxagul ci régularisation kon bi nga xam ne régulariser nañ ko ba moom dat boobu ci lañuy nekk. li may wax mooy képp kuy supporter Boy Niang li ñu la bëgg wax en tant que ambassadeur de la non violence li fi bëgg mooy ñu dajaloo ñëw estat en masse comme ni ñu ko def contre Lac de làmb ji fees del ñëpp di ko supporter mais ñu seetlu ni combat boobu am na bu mu jeex kenn déggul benn violence ci làmb ji ak ci biti alors loolu nag lu ko raw la ñu bëgg ci komba Tapha ak Boy Niang nit ñi toog jëndalante ay café jëndalante ay boisson kenn ku nekk supporter sa mbër ñu def fair play bu làmb ji tasee ñu ànd ñibbi saa ci jàmm waaw ah, te combat la boo xam ne nag ñaari mbër yooyu c'est des ay lutteurs yoo xam ne yu discipliné yu fair play sax d'ailleurs yu mën a créer ambiance comme nag ñoom loo yooyu yëpp bu ñu koy def amateurs yi ñoo tax parce que man je veux plus ah, di wax sax ay supporters ak ay fans club amateur laa bëgg. su ma sañoon di bu fekkoon luy disparaître la fans club ak ay supporters dootuñu ko tudd dañu war a mel comme association des jeunes amateurs mooy ñoom góorandoo yi nga xam ne seen biir ñu ngi dem am di cotiser mensuellement di def euh, solidarité di def social yaa ngi dégg barki dem mooy njaay ci weeru koor gi gis nga acte yi def togg seeni ndogu def tout seen biir am na ci koo xam ne yaayam dafa feebar ñu dem cotiser dem seeti ko toppatoo ko nit ku feebar aussi ci mbër yeeg yooyu ñu jël seen bâton de dem taxawu la ñun foofu la ñuy xool waaw mais ñëw dajal say nit ñi ñëw di musóorook di def ay ay sol ay grand boubou di yor ay cin ak yooyu ñun waxuñu ko solu ba rafet ñëw toog seetaan li nga bëgg a seetaan bu ngeen pare euh, am sax fa ay relation ba su ngeen jógee ci làmb ja di wootante téléphone pourquoi pas même euh, euh, ñële ñooñu doon def affaire non violence ñoom nu mu tëtti sax ñoom sóora ñoom sóora ak booy boobu nekk seen président bi nekk parcelle xam nga Massamba Dieye ñooñu aussi gis nga il faut que ñu yaatal mbir mi dem nañu ba xalaat ay stade yëpp pour rien que rek ñu fexe ba nit ñi di supporter correctement jàmm di am hmm? gars yi mën a sax di créer ay relation à travers seen sport national bi nga xam ne moom lañu moom la ñu suivre en tout cas combat bi nga xam ne mooy Tapha booy ñaa Niang daal ñun ñu ngi ciy séentu jàmm ju bari ambiance bu rëy ñu bëre ko ci fair play Boy Niang daan. sagesse la ñuy gis ci say parole tey ak savant bi nga xamante ni tey moom nga doon tey waaye tamit éloquence tamit gis nañ ko si kon père maa ngi lay jaajëfal rek. jërëjëf jërëjëf euh, yàlla jàppale Lutte TV Ibrahima sama doom la euh, te euh, bu muy départ sax nit ñi dañoo yaakaaroon ne yëf yi du réussir mais tey jii kenn ku nekk xam na ni PPV tey. am na solo lool ci ci làmbu Sénégal parce que ñi nga xam ne ñu nekk à l'étranger tey ñoom dañuy apprécier programme bi. ñi waaw ñi mënul dem stade am na ñoo xam ne dans leur village dañ leen di jëndal euh, perpé bi ñu di ko seetaan loolu daal dañuy wax ni lu ñu c'est à saluer euh, tey man li ma bëggoon sax écran géant yi. yi nga xam ne ñu ngi ci gox yi maire yi di jënd waaw di ko génne wutal leen ay chaise ñu toog seetaan ko correctement si biir ci ci ci ci ci biir dëkk waaw ci place publique yi. jërëjëf merci.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 jëf Tap Tap Send soo téléchargé application bii di Tap Tap Send dinañ la may 10 euros ak code promo Lutte